fii ci maarat bi ak ci àdduna bi yépp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa eh, di jiiteel ci nuyu bi kilifak eh, yoon wi seyxuna sëriñ muntaqa mbàkke di ko ndokkeel bu baax a baax a baax ci weer wu tedd wii ñu nekk ak bis bu màgg bi nga xam ne ci lañ nekk di ko waajal te jëm ci di ñaan suñ boroom yàggal ko fi te sottal ay mébétam te lépp ñu ànd ko moom di ndokkeel mbooleem jullit ñépp ci weer wu tedd wii nga xam ne ci la nekk muy safarul xayr di ñaan suñ boroom li nga xam ne seexul xadiim moom lañu ci woowee ngir ñu santale ko ci boroomam euh, lay yoolub cant suñ boroom defal ñu ko nu kawe nu kawe njort tey nag ñuy ànd ak yéen ci waxtaan ak yenn débat yi nga xam ne daayiratul muxaddamatul xidma da koy taxawe fii ci exposition bi Eh, ci maarat bi ngir waajale ko bis bi ak dundale ko xam-xam te muy benn tomb boo xam ne bu am solo la ci tomb yi nga xam ne moom lañ jagle moom màggal gi maanaam mooy daara yi xam-xam ji nga xam ne daa nekk ci biir jumaa ji ñu koy tuddee daarul maarif al islaamiya muy tomb boo xam ne bu am solo la tey daaray xam-xam joo xam ne daa nekk fii ci biir jumaa ji mu bokk ci nga xam ne dañ koo tànn comme thème boo xam ne dañ cee war a waxtaan wala ab gaaral boo xam ne dañ ko cee war a def ki koy def nag di ko di boroom xam-xam bu ñu xam ci bu ñu xam ci dëkk bi muy sëriñ Saalihu Jaxate di doom ci sëriñ Aas Jaxate mi nga xam ne moo yoroon daara ji te ba léegi ci ndigalam euh, la ciy doxe nga xam ne moom ci jamono ji ñuy wax ak yéen sëriñ Saalihu Jaxate mi nga xam ne moom lañ feggool bokk na ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji ci biir jumaa ji di fi jàngale moom nag waa bu góor woowu nga xam ne moom lañ wax te mooy sëriñ As Jaxate moo ko dalal ba ne ko ba ne ko bàyyil ci moom la jànge xam-xam ko ci téere yi nga xam ne moom lañu xam bu dee ci fiq walla ci aqida wala ci yeneen domaines yi ci yeneen wàll yëpp sëriñ As Jaxate mi waajuram moo ko ci jàngal ba xëy na ko ba xëy na ko bàyyil ndiki noonu sëñ Saalix mi nga xam ne moom lañu feggool mi ngi jàng mi ngi mottalee njàngum alxuraanam ca belal ci jamonoy sëñ Abdul ci jamonoy sëñ Abdul Ahad kon sëriñ Saalihu ñu ngi lay nuyu bu baax baax a baax di la dalal ci barab boo xam ne boo miin la te di la jox kàddu géet ci tomb boo xam ne mën nañoo wax ne bokk nga ci ñi nga xam ne yaa ko gën a yéen a ko gën a jekku ndax daara ji yéen a ci nekk yéen yéen a ko gën a xam tey nag ñu ñëw ngir waxtaane daara ji nga xam ne mooy daara ji nekk ci biir jumaa ji ñu koy tuddee daarul maarif euh, dañ lay bàyyi nga nuyoo bu ko defee nga jaaraale ci nuyoo bi rek xamle lan mooy daarul daarul maarif al islaamiya fan la sosoo fan la tàmbalee ñan ñooy ñi fiy jàngale ñan ñooy ñi fi jàngee ñan ñoo fi génnee yan téere lañ fiy jàngalee ak ñi fiy jàng ci yan melokaan lañuy ñuy mel kon ñu ngi wàccee foofu kàddu gi di la dalal di ñaan suñu borom mu ubbil la wasalaamualeykum wa rahmatullah bismillah aousubillahi min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 di jiital ji suñuy kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, di jiital ci suñu nuyoo nag suñuy suñu siyaar ak suñuy ñaan di ko jële ci alxalifatul am cheikh mahamadul muntaqa xafisahullah wa raa eh, di jàllale siyaar boobu ci mbooleem kilifa yëpp ak jëwrinam yëpp waaye nag di ko andi di leen indi lit kàddu yu nuyoo ak kàddu yu ziyaar yu jógee ci suñu kilifa di jëwrinam fii ci daara ji muy sëriñ alxaaji Mbàkke Jaxate moom sëriñ Xamsatu mi nga xam ne moo moom moo nekk fii ci jumaa ji di fi jànge ba yàlla def ña fa nekk jamono jii di fa jànge li ci ak njabootam ñëpp ci liggéey boobu ci lañ gënee àdduna mu yar leen ci ñu jàng ci ba tey ñu koy jàppale ci liggéey ba di ñaan suñu borom moom it yàggal ko fi loolu te weral ko di ziyaar ak nuyoo ba tey doo daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bu am solo bii nga xam ne ñu ngi koy def di ci wutu murit yëpp di ko jaarale ci Seex Maodo Sëriñ Fàllu Sekk mi ñu nekkal ak Sëriñ Abdu Xaadir Mbàkke ba ci Sëriñ Xaafiya al imaam ma nekk ci gën a kaw di ziyaare suñu technicien yëpp ak mbooleem ñi topp waxtaan wi ñëpp Seex Maodo Fadal ni nga ko waxe ci daarul maarif al islaamiya bu fekkoon dañuy kañ la sosu daarul maarif al islaamiya moom mi ngi sosu lu topp ci 7 juin 1963 bi jumaa ji tijjee rek ci la daara ji sosoo yàlla def na rek bi daara ji sosoo moom moo fi nekkoon di fi jàngale moom la fi Seex Mamadu Faadal njëkk teg mu jàngale fi nekk na ñetti weer biñ demee ba octobre 1963 moom la fi Seex Mamadu Faadal teg Sëriñ Alxaaji Mbàkke Jaxate ginnaaw bi mu consulté boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko waroon diisoo ci ak ñoom bokk na ci ñooñu sëriñ bu silimaan mii nga xam ne moo fi daan jàngale yàlla def it biñ fi indi siñu asit siñu asit dana ci biographie am siñ bu silimaan bokk na kenn ci ñu ko jàngal lu mel ne dal daaliya ci moom la ko jànge ibnu duray di ci moom la ko jànge maqaamaatul xariir yi ci moom la ko jàngi dinañu ko sëriñ bi nattalee euh, kon euh, di di di Europe 1963 ba fii ñuy wax ak yéen sëriñ alxaaji Mbàkke jaxate moom moom koy jàngale ci ñu gën koo xamee ci sëriñ aat jaxate bi ñu demee ba daara ji ba sëriñ Abdou Lahad nekk ci xalifa bi nekk ci xilaafa gi ci année 80 it andi na fi Eh, sëriñ eh, Abdourahman Mbar waajuru sëriñ Saam ñoo ngi koy siyaare bu baax di ko ndokkeel ak sëriñ Mor Bousso mm, sëñ Blaat moo ko fi moo ko fi andi moom it ci daara ji mu nekk fi ab diir nekk na fekk sëriñ bi ba ni mu ko fi eh, yóbbuwaatee ci yeneen i itte ngir mu war a nekkiwaat imaam ci Jurbel ñu yóbbuwaat ko fa waaye bi muy tijji 1963 sëñ Bousso Elimane ci la tàmbalee depuis 9 octobre 1963 xam manees naa jàpp ne 4 octobre 1963 moom la ko sax Maodo Fadal woo jox ko ndigal li jamono yi mu koy jox ndigal li nag boo fekk na mag ñi ñi fi woon mag ñi fekk woon démb ca daara ji ci ni ko sëriñ euh, ni ko seex sëriñ Mbàkke bu sa melale bu ñu delloo ci kitaabaat seex Mbàkke bu sa yi nga xam ne sëriñ Siidi bu sa mulaay dajale woon nañ ko ci xëtu ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn danañ fa fekk muy nettali ne sëriñ Touba sëriñ Mbàkke Bousso di nettali ne sëriñ Touba bi mu fiy jógee bàyyiwut ci mbiri àdduna ci li ma xam lu dul ñett ñett yooyu mu tudd ne mooy aji màkka gi ak jumaa ji ak jàngu bi waaye mu wax lu am solo daane waaye jàngu bi nag moom dafa nekkoon loo xam ne day topp jumaa ji maanaam jàngu bi sëriñ bi da koo bëggee woon ci biir jumaa ji loolu noonu la ko waxee daan nag moo taxoon tàmbaliwuñ ko woon daan bu dee jumaa ji nag moom eh, sëriñ bi eh, jotoon na ko tàmbali ba ñu teg mm, junj histoire fa la ñu ko defoon fa la ñu ko tàmbali woon a def ca mën naa am muy béréb boo xam ne eh, biñ demee bay defaraat jumaa ji jàpp nañ ne fi sëriñ bi waxoon daa wutee ak foofu moo tax ñu indiwaat ko fii mu nekk bi jumaa ji demee ba pare nag histoire woo sëriñ alxaaji Mbàkke Jaxate it ni mu ko nettalee moom Cheikh Amadou Faral la ko wax ne ko sëriñ tubaa moo ñu digaloon ñu tabax jumaa te firnde ji wax nañ la ko mooy sëriñ Mbàkke bu sa na ne sëriñ Tuubaa ci ñetti mbir la fi bàyyi ci mbiri àdduna yu mu bëgg ci biir yooyu jàngu bi boole na ko ci kon bu ko Cheikh Amadou Faral waxee ne ko sëriñ Tuubaa moo ñu digaloon ñu tabax daara ji kon loolu ndigal loolu mi ngi ci mbindum sëriñ Mbàkke bu so ne ko nag béréb ba def defar nañ ko ba mu noppi ñaanuk sëriñ Tuubaa googu nag ma bëgg muy yow maanaam yow ngay jëmmi ñaan gi ci la ko joxe ndigal li joxaat ko ndigalu mu dem diisoo ci ak sëriñ Xamsatu boobu ci mujjanteelu sëriñ Xamsatu it Muhammar la woon yàlla joxoon aw fan la nee nañ dund na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent juróom-ñeent kon 63 fekk na mu romb mil mu romb juróom-ñeent fukki at ndax mi ngi fi jógee ñu ngi ko mi ngi fi jógee 30 mars 29 mars 1969 son moom sëñ Amsatu bi mu ko ko waxee nag neen dafa fekk sëriñ bi tëdd sax waaye dafa jóg toog na ko alhamdulilahi lazi hadana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana ko ci ay mbégte yu bari yoo xam ne sëriñ Tuubaa on na ko ci daara yi ba mu ñaanoon suñ borom dimbali ko it mu am lu jógee ci géñoom ñoo xam ne danañ jàpp ci liggéey boobu da ko loolu ba ma ko ba ko sëriñ Tuubaa wax Seex Ahmadu Faadal fekkewu ko bu la joxaatee ndigal na nga ci sant yàlla bu baax jox ko ci nag mu doxee ci ak pasteef ak pas-pas boo xam ne xam naa moo ko may taw feexe di ci mën a liggéey si ba léegi ndax ba fii may waxee yow mi ngi soox di ñëw yàlla yàgg euh, bi mu tàmbalee jàngale nag nee na bi ñu ko ko waxee rek xawoon na koo tiital lool ndax boobu li ëpp ci ay kilifaam yëpp a ngi fi woon bu dee ci biir kër sëriñ Amsatu am na ay mag ay magam yoo xam ne jàngi woon nañ Mauritanie ba ñibbisi sëriñ Moustapha Jaxate Baye mag mi ngi fi woon ñu ni mel moom mi bari na ci lu ñu xam ci Serigne Ass ci histoire lu gën a féete ndaw loo xam ne moo ñu ko daan nettali sax moom laatu ñu koy laata ñuy dem ba tàmbalee gëstu ci sëriñ bi eh, magam it sëriñ Abdoulahi mi ngi fi ak yeneen i magam naka noonu sëriñ si ko doon jàngal ñi ngi fi ndax ñi ci gënoon a siiw mooy së sëriñ Bousso Elimane mii jàngal na ko sëriñ Makhtar bu it moo ko jàngal programme Mauritanie bi moom moo fa jàngi woon yow jàngal ko ko lim ci yokk ci majlis bi lépp ci sëñ bu Buso la ko jànge ak kutubul muhaasara yëpp nag naka noonu sëriñ Seex Sey nga xam ne bokk na ci ñu ko jàngal fiq ci moom la jàngee sayu xallin ak sëriñ Xamsatu ci boppam mi ngi fi sëriñ Seex Jaxate mi nga xam ne it moo ko àggaleel sax alxuraanam di seen jàngal ko lu bari ci téere yi xam-xam yi ba tey ñooñu ñëpp ñu ngi fi woon kon buñ ko ko joxee jàng bi mu koy jàng mu war ko li xawoon naa waaye nag booba amoon na bibliothèque naa bokk na ci li nga xam ne euh, ci ñun lu bari ci ñun fekk waaye amoon na bibliothèque nag wutal ko bibliothèque boo xam ne mboolem téere yi muy soxla yëpp euh, dañ ko fa andi woon sëriñ bi nee na booba yem ca gënoon a fonk ci njëlbeen gi moom mooy dictionnaire la loolu lu rëy téye fa dictionnaire yi yoo xam ne suñ borom suturaal la ko tijjiwut sax benn dictionnaire xool baat donc teere yi yàlla defaloon ko ci tawfeex loolu sax ñun ñi ñii <laughs> nekkandoog moom ba léegi eh, dañuy ci am ak yéemu ci moom ndax moom ba léegi yàlla ko defal tawfeex ci mokkal gu sax bi suñ borom dogalee loolu nag eh, ci la tàmbalee jàngale ba jëmbi tey yii wax naa it ñam fa nekk loolu mooy ñooñu mooy sëriñ bu Selimaan la fa fekk kooku fa fekkaat it mooy sëriñ Abdourahman Bar waaye ci jamono yi sëriñ Abdou Lahad la sëriñ Abdou Lahad indi bu dee Cheikh Amadou moom sëriñ Bousso Elimane la fa indi woon ginnaaw bi ci diisoo ak ak sëriñ Bousso Elimane ak mag ñooñu dafa indi sëriñ As mu yore liggéey bi jëmmi turu Daarul Maarif it sëriñ Fallu moo ko tuddee këruk xam man naam sëriñ tu sëriñ As daal def tarjama bi tuddee ko Daarul Maarif al Islamiya eh, sëriñ daal di def daal di wax tur wi ci tudde ko waaw tudde ko këru këru xam eh, sëñ Samour Fadal moo ko tuddee këru xam baat bi sëñ asdar koy tudde nag daarul maarifa al islamiya mu nekkoon tur yaa ngi wax ne bindoon nañ ko fi xam naa bi ñu liggéeyaat liggéeyu mujj yi ci la wala xaalis yi lay continue du ñàkk yàlla dana def tur wi dana dana ñëwaat Euh, programme bi waxtu wi ñuy tàmbalee jàngale moom ni mu koy waxee toujours rek bu ñu bu ñu jullee fajar ba noppi ba euh, comme murid yi rek ba def maaxuus ba noppi rek mooy werdu tàmbali mooy waxtu tàmbali bi léegi-léegi sax bu fekkee ne soxla daana ko dab ñun daana ñëw njëkk fajar ñun ñii bi ñu daan jàng ñëw nañ fa ba tàyyi 5 heures noddu ginnaaw noddu gu njëkk bu jàngee ba julli jot mm, dem julli may ko def ay werdoom ba pare daal dellu siwaat fa ñu nekk ba keroog muy mujjee gis gis gis ñu war a jàngal kenn rek ñu koy takk ci midi ma des na ko takk ci tisbaar ba tey bu njëkk daana dem ba tisbaar boo ci boolee sax ñun ñii biñ daan jàng li ñuy jàngee ci moom ca kër ga boo ko ci boolee diggante tisbaar ak takkusaan moom la daan jàng ndax ñun diirub li ñuy jàngal xalil waxtu jàng wi mu ngi nekkoon bu ñu jullee tisbaar ba noppi waxtu noppi wi mooy bu ñu sonnee ci jumaa ji la ñuy arrêté waxtu yi nga xam ne ci lañ daan jàng xalil ñun groupe bi bi ñuy jàng xalil kon moom programme boobu ci bi muy am kàttan dëgg dëgg noonu moom mooy programme bi noonu su koy wéyale ba léegi ba fi may wax ak yow bu ñu jullee jumaa ji pare ci waxtu yi ñuy jàng da nga gis ne tijji nañ daara ji am ñu tàmbalee jàngale buñ ko takk ci gisaguma nit mu ñëw waaye waxtu jàngale bi waxtu woolee tàmbale ba léegi am na fi jàngale ñoo xam ne ci Euh, ak ñu fi toppale ñoo xam ne dañuy àggale seenum njàng ci université yi euh, suñ Mamor bi ak yu ni dañuy ñëw xëy si ñoom ba seen waxtu jàng jot ñu dem te seen ak ñeneen ñi ñëw dañuy relevanté ay retard waaye waxtu yu moom waxtu woo tàmbali ba heure noppi bi maximum mooy tisbaar ñi fiy jàngee it ñu ngi tollu ci âge yooyu âge yi nit di bàyyi jàng bàyyi am jàng rek muy euh, bàyyi njàngum li ci gën a teel mooy fukki at ak ñaar waxtu wi nit ki mokkal aw alxuraan ndax li ëpp ci ña fay jànge ñu doon 100 jàpp nañ ne 90 pour cent yi ñu mokkal alxuraan lañ wala ñu ñu jógee ci daara lañ ba noppi ñu ko miin lool lañ li gën a bari it ci dafa nit di jàngi kenn du ko takk fenn ndax léeg-léeg nga gis fi nit ku dem ba am soxna continuer di fi jàngi wala ku fi ñëw di fi barkeelu suwaat waaye nañ ko mën nañ koo takk ci xamalee aas boobu ba aas bu ñaar fukki at juróom mooy bi nga xam ne xam naa ne dana xaw a dëppoo ak ba Paul Marty di melal daara Serigne Touba ji ci téereem boobu euh, ne ñi nekk gone ba am 25 ans waaye jamono jooju nag daara ji boobu bare bareegutoon ndax juróom fukki nit ci loo ko Paul Marty takkoon boobu ci jamonoy tubaab bu ne jamono jii nag ay téeméer lañ ndax boo fa ñëwoon fi mu ne ci ñi ñu takk nii rek buñ ko ci limee ay téeméer ay téeméer ay téeméer ay téeméer lañ ndax waxtu wu nekk nit ñaa ngi dugg di génn. boo xoolee bërëb bi day fees day fees waxtu wu nekk li ko tàmbalee 7 heures et demi 7 day fees ba 10 ba 10 heures day fees ca toujours nit a ngi jàng di dem nit a ngi dugg nit a ngi génn njàng mi nag ci wàll googu daf cee xaw a ba tey waaw teewut nag ci jamono yi mi doog a tàmbalee bu njëkk sëriñ bi bu la masaana bindal taskiya bu bu bu bu bu zahada ibtidaa yi da dem jaareem ñu jox la ko direct bu état bi moom amoon na kii boobu eh, équivalent boobu mayoon nañ ko euh, bu dee bag it dañ la may nga def candidat loolu nag mën naa am léegi ci loi yi ni mu gënee soppeeku ak ñàkkoon di actualise document yi tax na lu mel noonu amagul waaye nag teewut ba léegi gone fay jànge yàlla ngi ciy def tawfeex ñi ñi ñuy xam ci dëkk bi ñuy def majalis ba pare am ay kayit yu tax ñu mën a yebal nit mu def yi bag li ci néewaa nañu yebal fa nit ca ca ñooña ñu am ca moom lu at ci amuñu bac néewaana buy am néewaana daanaka buñ tollee ci wuti bac buñ defee candidat libre rek suñ borom defal nañ ci tawfeex ba jii rek ñi ma ci xamoon ñu koy def it yàlla defal na leen ci taw tawfeex kon loolu mooy eh, waxtu jàng yi bu dee programme bi ñu fay jàngale nag mooy programme yi jàngale ci téere yëpp rek bu dee ci fiq la mënees naa wax ne ñi ngi dalee axdar yi laxdar yu la ñu daal ciy teg tasawudu si xaar nga xam ne moom sawaabi diine yëpp ñëw na ci ndax boo xoolee imaan ak juróom-benn xat li muy néew néew téere boo xam ne matul ñaar fukki xet ak fekk yooyu yëpp imaan ak juróom xaaj yëpp a ngi ci lislaam juróomi xaaj yëpp seeni farat ak seeni sunna mi ngi ci al ihsaan as sunni yi ba tey mi ngi ci ci détails yi muy yi muy laaj yëpp mi ngi ci ba tey boobaa nag ci teg jawhar nafiis naka noonu daal ba keroog ngay àgg ci ay ibnu xaasi rek euh, muxadamatul xasiya euh, alfiyatu basaar misbaaxu salik risaala euh, mooy jiitu misbaaxu salik ba keroog ngay àgg ci aqrabul masalik ak sayxu xalil bu dee ci téere yi ñuy jàng ci wàllu tasawuf sulukiyaat yeeg al axlaaq wal xiyam manes naa nax ju moo ci jiitu comme yëpp jaar ci maxaaliqu niiraan munawiru sudur mu laynu sudur masaalikul jinaan ba keroog ngay ak duna ko yaa mahmud wasaayaay seexul xadim yi ak yu mel noonu eh, bu dee téere yi ñuy jàng ci wàllu luxal arabiya ñu koy tàmbalee ci bu dee ci al adabul arabi ñu ngi koy tàmbalee ci mën naa am burd burdul madih jaar ci hamziya nga xam ne moom muxtawa bi am na solo lool teewut foofu lañuy ñuy tàmbali nag daal di tàmbalee ci euh, lu bari ji téere al adabul arabi muxtaaraat min al adabil arabi euh, moo xam al jaddulaak xad kaanaak azalatu ray yaxtasil shimaxmax euh, yooyu sanfara ba keroog ngay jaar ci ibnu durayd daaliya ibnu muhayyab daal dem ci maqaamaatul xariiri maanaam teere ji soxara al jaahiliya bu dee teere yi nga xam ne moom nañuy ñuy jàngalee ci wàllu tawxiid moom waxoon nañ tasawur fiqar waxoon nañ tasawur subaan teere yi maam Sanusi bi bi mu taalifee doog a jàng mu waxee bu Xuddoos yow waxee bu Xuddoos yi yàlla def na tawfeex ba 66 sifaat yëpp xam nga mi ngi ci tawxiidul asxar yi yëpp mu ngi ci biir moom seriñ bi def na ci sëriñ bi sax wax na ci lu am solo neen asra alam yaftadha ni mu ko nosee ci ràbbe ci wàllu tawxiid ni waa na téere boo koy fekk ci programme université rek nga ko mën a fekkee noonu bu dee ci wàllu tasawuf ak sarf ba tey moom it danañ ci jàngale danañ ci jàng euh, ak dañ ciy njëkk a tàmbali mën naa am jaar ci saxaada tulaab ci ñaari xeetu jàngin mooy euh, jàng saxaada tulaab ngir information bi ngay soxlaa xam ci naxwu mu jox la ko ci yoon bu njëkk bi ñaaree bi li ñuy tuddee li'raab wolof mooy mën a xam xawaayid euh, naxwiya yi ci luxal euh, wolofiya luxal maxaliya mën na koy lixraabal euh, lixraab wolof ba mu jeex bu paree nag jàll ci yeneen téere yi des fekk na booba ba ngay jàng bu njëkk bi it jàngoon nga naxwu waadix ñetti jus yëpp bokk na ci muxarrar yi Euh, ba tey jaar noonu ci mutammatul ajromiya moom it mi ma yalzamu ala taalib an yaxfasa téere yi ñu tuddee yooyu am dañuy bëgg domaine bu nekk ki koy jànge li ngay recommandé mooy domaine bu nekk na am téere bu mu ci mokkal mu am bu mu ci mokkal au moins benn waaw donte benn moom dañuy mokkal nas bu baax mokkal am ci it ak dégg bu baax ci li nekk ci biir mass bi waaye yem ci xam ne commentaire yi dañu bañ mu diis boo ci boole yeneen loolu day tax da koy dimbali ci yeneen téere yi ci topp day tax mu amul information lool bu baax ci euh, jëmmi euh, voilà jëmmi ma madda boobu voilà mu dëgëroon ci lool euh, bu dee ba tey ci kutubu muhaasara yi ñu ngi tàmbalee ci insaaw saxe insaaw saxe danañ fa jàngale tilaawa ak insa wu saay waaye tilaaw ak insa gi nag boole gi day day day aju ci aasu nit ki bu fekkee nit ku yeex a bind lay doon te lay gis nañ ne majaalis yi bu njëkk la léeg dañ naan jafe-jafe ci wàllu taxriir rek euh, mën a di tatbiix ci wax euh, lugal arabiya moo tax bu fekkee ku yeex lay doon mën naa ni insa ci lañu tàmbalee moom lañ koy jàngal boole ci lenn ci téere yi nga xam ne nekk na ci mu muharrar xukume xukume bi mais ñu ko ci jàppale ci yu mujj yi bu ko andee ñu ko ci jàppale bu baax na ko noonu waxoon nañ ne téere yi des ci al adabul arabi yooyu muy ay ay burdo ñu mel waaye yooyu moom mooy yi gën a fës ci téere yi bu dee ci usul danañ jàng al waraxaat yeeg yooyu xawaaxeeg fiq ya as saadi bi nga xam ne tuuti na ca yu bëree bëri ci li ëpp ci xawaayid yi ngay soxla xaayida yi xawaayid yi ngay soxla ci xaayida yi mënta ñàkk daanaka mi ngi ci moom it téere bu ndaw bu neex a mbokkal boo xam te ne nit ki ci mën a am ak takk ci masala yi bu baax a baax bu dee usul it moom daa mënta ñàkk euh, man xorimal usul xorimal wusul liñ koy waxee am ne xam-xam bu am solo boo xam ne du tuddee al bu tafsiru nusuus day jàppale ci nga mën a am liir bu baax ci alquran wala hadis day jàppale ci taxi yi daal nga mën cee am ak dégg bu baax baax kon bu dee ci téere yi nga xam ne moom la ñu jànge yooyu téere lay doon bu sëriñ bi nag mën naa am ak jotam am jàngale ni ngeen ko xamee ci metti ci biir bu boobu dox na digganteem ak man di taalif yu ni nag waaye comme moom yàlla def na ne euh, imaam la ji jumaay gaawaan ji moom la fi Seex Saalix tegoon bu mu demee ba tële ci mage euh, ca la sàkkuwaat ci xalifa sëriñ Mahmoud Lamine Baara mu wutalal ko kaneer waaye loolu nag tax na moom taalif ak taalifam kon ci téere yi ci xutba ci mbooleem at mi yépp bind na ci ay xutba bind na ci ay xutba yoo xam ne moom moo ko bind ama am solo mbooleem munaasaba yi yi xewoon ci diggante boobu ma ne sa ko takk 1994 euh, ba bu yàggul ay 2007 ba 2009 2010 daanaka li ëpp ci munaasaba yi fii daan bind na ci ay xutba waaye am bind na ci yooyu la doon na nag doon ci daara ji moom daanaka euh, tudd ñi fi jaarut ni ko mën a mbokk waxee rek day gën a yomb ci tudd ñi nga xam ne jaar nañ fi waaye nag bu ñu bëggoon a tudd ñi fi jaar ci tur mu bu ñuy seeni tur ñu na cee tudd koo xam ne euh, moom moo nekkoon kilifa daara ji diiru bi mu fi nekk yàlla sax yokk ay leeram ci di ci daara ji la jàngi du ko doon def toujours ma baal baal ma baal bala ma baal bu muy tàmbali fekkoon na moom sax moo faadal andi woon ko ci daara yi siñe am sa duñ joxoon ko siñaas moom sëriñ Mamor fi la jànge alxuraan jànge fa xam-xam nekkoon na woon fa ak sëriñ Mouhamadou Xaban mi yore daara ji léegi ak sëriñ xàll yi ak seeni yeneen mbokk yeneen fa fekkaat moo xam seen i jarbaat lañ ak seen i yeneen i mbokk Sëriñ Tuubaa yi buntu kër gu nekk li lay alhamdu xam nañ fa ay kilifa yoo xam ne fi la ñu jàngi fi lañuy ñu jàngi ne bu ñu tuddoon siiw ci média yi nit ñi gën nee la xam ci ñu ci wàllu xam-xam tasaare yoon wi daanaka pour ko ñu tudd rek naa wax ba ci Sëriñ Abdou Samad mi yàlla def na ne bokk na ci moom daal kun fi kulli yawmin taarika ihmal naasika kooku sëriñ bi waxoon ak bihima waxlam mu taxoon xam-xam moom daara ji suyee na ci rôle bu ama am am doole ci ay jamonoom moo nekkoon université bi dëkk bi daanaka ndax jamono yi muy tàmbali moom si Amadou Fada seen sëriñ alxaaji Mbàkke Jaxate bi daara ji boo fekk na si Habib ñëwaatagutoon Tuubaa bi mu jàngalee suñu kilifa yu mag yooyu ba noppi sëñ Basiru du ko yóbbuwaatoon mbul mbul kaayeen moo tax daara ji bi muy ay jamono moo fi nekkoon jàngukaay bu mag ci ci Touba jàngukaay yu mag yi it bari na ci ñoo xam ne fi la ñu génnee mooy buñ tuddee lu mel ne sëñ Moustapha Mbaye muy jàng jàngale ci barabu Cheikh Modou sëñ Modou mooy bokk na ci ñu génnee ci daara ji buñ ci ku mel ne sëriñ Xaadim mbay ba tey moom it bokk na ci génnee ci daara ji buñ ci tuddee suñu Mamor nag noonu xabban mii nga xam ne moo jiitee daaray alxuraan daaray yi moom la ko sëriñ bi jox it bokk na ci buñ ci jiitee it ku mel ne sëriñ Seex bu so al Oustaz moom bokk na ci génération bi njëkk ci daara ji waaw moom moom moom moom njëkk jàngal ci ci gàttal ci moom ci moom ci ñooñu sëriñ Xaasim Jaxate ci am satu nga xam ne léegi moo jiitee laboratoire doctoral bi université Anta Diop docteur Xaasim amee Euh, jaaree Sarbon yooyu yëpp ñëpp xam ko ci wàllu xam-xam di bindkat bu mag ci wàllu tasawu it ci bokk ci njaboot siem euh, jànge na fa docteur Khadim Sylla euh, Serigne Mamour waxoon nañ ko moom nga xam ne moo yore daara ji ak Serigne Mamour Xaban mii ko ko wut ñi yore responsabilité njàng mi jamono ji it ku lu mel ne sayxul majlisu sëriñ Muntaxa bu bees bi sëriñ Mbàkke Abdourahman moom it jànge na ci daara ji sëñ Fàllu Sekk yaakaar naa mooy secrétaire majlis ba bu ma juumut moom it jàngee na ci daara ji ah, inspecteur Fàllu Sekk bokk na ci ñi jànge ci daara ji ak ñu bari Cheikh Salih mi nga xam ne mooy directeur u Alasarit jaar na ci daara ji daal ak ak ñu bari docteur Mohamed Ahmed Lo nga xam ne bokk na borom xam-xam yi siiwit ci ci bi mooy ambidu kulliyatul ifriqiya li dirasat islam yi moom it bokk na ci daara daara ji même waa daarul istiqaama Ibrahima Lo moom it bokk na ci ñi génne ci daara ji ñooñu dañoo tudd rek ñi nga xam ne bu ñu waxee seeni tur ñëpp xam ko bu dee kër si Abdou Lahad it man istafa tudd ci suñu sang yu bari ci mag ñi ñoo xam ne ba tey ci daara ji lañu jànge waaye doy na tudd Cheikh Abdou Lahad ñëpp xam nañ ko ci secteur njàng kon xiyam ñëpp jaar nañ ca daal euh, kër nekk rek ci nekk rek mbooloo ci ña fa jàngee ci daara ji li yàlla def na tawféex it ba fii may wax ak yow ñu seenu njaboot daanaka ña nga fa waaw boo ñëwee boo jëlee kër Cheikh Ahmad Fadal lu bari ci sët Cheikh Ahmad Fadal yi moom ña ngi fi boo demee kër Cheikh Abdou naka noonu kër si boo demee Daaru Xuddoos ba tey naka noonu boo demee ci kër yu bari daal seenu njaboot ña seeni seen i jaaroon wala seeni mag jaaroon fa wala seeni maam jaaroon fa am na ñoo xam ne seen i maam la sëñ bi jàngaloon léegi ña nga fay jàngi ña nga fay jàngi lu ci ama am def ci taw feex ak barke ndax day daara joo xam dafa nekk ci biir juma waaw boobu ñaanuk sëriñ Tuubaa bil Mustafa lii banal xut madrasatan biha yazulul azma wal jahlu wal loolu moo feeñ ci daara ci barke boobu feeñ na ci ndax lu fa waaye jànge lu mu tuuti tuuti rek da ngay gis ne suñ borom da ciy def barke surur yi it bariwut mooy sart yi ñuy bëgg rek daara ji jàppe daara yi tarbiye ni ko si ñaas di wax mooy day bëgg saqaafa euh, bu muridee wala saqaafa dëkk bi di ci feeñ ci wàllu col ci wàllu col mooy toujours na ngay col colu dëkk bi mooy col gu jot gu mën a julli Eh, boo solee la ne nit ci tubéy na nga jël mbubb mu gudd nga teg ko ci waxtu wi it mooy day bëgg fajar moom boo naajee ba naaje huit heures moom dala fa war a fekk obligatoire dala faa war a fekk waxtu wu nekk it boo ñëwee boo jàngsee bépp téere bu ñuy way téere bu way des koy tare boo tari wut kenn du la jàngal ku la ko defal it xamal ne defal na lu daara ji tari waaye bu dee jàngalekat ya fa war a jàngale léegi-léegi nag nga gis nit di fa jànge am koo xam ne day jóge ci ab koñam ba pare di jàmbar di borom xam-xam di fa jàng si indaale ab am di ko jàngale mën na koo defal jàngal ba pare mu wuute ak lu lu lu ñu mën a identifier loolu mooy waral am ba pare docteur yi wala yu demee noonu waaye loolu bokk ci li nga xam ne ji dana koy dana koy bëgg nekkul lu ñuy ixtimaat ñun eh, bu dee ci tari bu dee téerib tamaari nit par obligatoire des koy tare des koy bind tamarin des koy bind bu dee lu mel ne insa yooyu laaj yi des koy def conversation yi dañ koy def toujours dañ koy def ñu mooy tax ndax di jàngal nit ndax li nga koy jàngal mi ngi koy mi ngi moo tax côté boobu it ñi ngi koy def sëriñ bi nag ba fii may waxee ak yow moom nee na bi mu fi dalee jàngale ba léegi day bañ rek nit ñi jàpp ne ab ustaas la woon bu fi jàngale man nees na cee joxe exemple ci euh, bi ñuy tijji daaray bi ko si xam mu Muntaxa yabalee muy tijji majlis bale ci melokaan wi mu meloo woon mooy der gi mu takklu woon gi mu wutlu woon dane comme kuy nekk ci xidma li nga ko xamee mooy dong laxasaay lañ koy tudde kon dañ ma wutal laxasaay gu rëy ñu xam ne man ba ma dalee jàngale ci daara ji ba tey mosuma nekk ab ustaas buy jàngale mais xadim laa woon rek dim laa woon rek boo xam ne dama doon liggéeyal Serigne tubaa ci ci liggéey bi nag sas wi moo nekkoon jàng jàngale ba léegi ci loolu laa nekk waaye du ma lii wala ma nekk laa loo xam ne dañuy jàpp ne boo yëngutu ci xam-xam rek ab ustaas nga boo xam ne da ngay kii mu ne waaye moom man benn murid laa rek boo xam ne buy liggéeyal Serigne Touba jotoon ndigal li muy ndigalu Serigne muy ndigal loo xam ne nag lu jafele ci ndigal muy ndigal loo xam ne Sëriñ Tuubaa da ko fee bàyyi ak bëggam loo xam ne man laajiwuma ko it laajiwuma ko sëriñ Samadou Fadal moom ma woo jox ma ko moom toujours noonu la koy waxee bi ma ko joxee it sëriñ Hamsatu nga xam ne ku teel a takkook Sëriñ Tuubaa la ci Mbàkke Kajoor ba ci mujjantal gi daan ma ci jox ndigal joxaat ma ci firnde ji wane ne Sëriñ Tuubaa bëgg ko Sëriñ Tuubaa gu mu fi bàyyi woon moo am ma nekk ci moo tax mu ne ku fa nekk ci juróomi at ci sama ci ci ron samay ndigal ci def ak bàyyi moom suñu boroom dana la jox barkeb xam-xam boo xam nga àggale ko fa wala nga àggale ko faneen ñoo ci yem loolu daal bu ñu doon exposé ñu koy def bu dee ji béréb bi mu nekk ci daara ji it naa xam nañ ko ci jumaa ji mi ngi ci west bu sowwu càmmooñu sowwu jumaa ji ci bunt bi nga xam ne mooy féete ci côté kër Cheikh saale eh, fa la nekkee sooroor bu ndaw bi tiim ko muy bërëb boo xam ne it ci cosaan ci jamono yu njëkk yi ci fi la jigéen ñi daan daan jullee ajjuma bu ajjuma sànni jot fi la jigéen ñi daan jullee nga xam ne dañ daan jaaree ci bunt boobu nga gis la nurookub jàppukaay ca la ca la ñu jaare bu ñu dee dugg ak bu ñu dee génn xam nga léeg-léegi ci suñu mbokki soxna yi dañuy xaw a texet ci bu ñu dee bokk daayira bi yaakaar naa ñu ngi ciy dundub coono bu métti ci bu ñu dee dugg ak génn di ko bokk ak góor ñi moo ñu wutal leen bu ñuy duggee bu ñuy génne buntu boobu ci buntu daara ji bu aju bu masaana jot la ci fa la jigéen ñi daan jàngi beneen côté bi mu nirool ci jumaa ji it mooy fii daayira bi defee liggéey bi te beneen bërëb bi nga xam ne nag dañ ko waajaloon pour jigéen ñi waaye yàlla def Seex Ahmadu Fadal jotu fa woon a temps yiin koo xam ne mën na fay jàngale jigéen ca baaxoowuñu woon a xam ci ñoom ci waa mbaakol yi di di di jaxase góor ak jigéen ci bërëb bu ñuy jànge moo tax moom moom da jàngale ma ay góor rekk la woon ñi ay doomam yu jigéen nag moom ñëpp jàngal na leen ca kër ga ak ñenn nit ci ñi daan jàng si ci kër ga mu doon ci ñun ñii daan am ñuy jàng si ji yéen ci waaye ci jamonoy ngoon lay doon jamono bu dee ci jumaa ji nag dafa laaj war ma xam ne moom la ca doon gën rek mooy jigéen gu leen ciy jàngal moo tax loolu nekk ci woon ba yàlla def ci tawféex tey dur na ay jur na ay daarul maarif yu bari am na ci bari na ci ak njabootam ñoo xam ne léegi du ñàkk am nañ seeni i daaray bopp xam ne ay daarul maarif la ba tey kër Cheikh Mamadou Fadel gii am na geneen daarul maarif boo xam ne majlis bu mag la bu fi judduwaat boo xam ne taabia li li haadihi l madrasa na geneen daarul maarif goo xam ne sët Cheikh du Fadel li ba tey tijjiwaat nañ ko fële ca Ndindi kon léegi yaatu la loo xam ne yàlla def na ci tawfeex bokk na ci jumaa yi raar yi nga xam ne manees naa tudd ne jumaa jii kat diw fi lañ ko dalale man mii ci exemple laa ci fi lañ ma njëkk dalale Eh, axdari yu ba fi laa jànge say xalil ba fi laa tàmbalee taalif ay xasida di ko bind di ko jox moom kon loolu yàlla def na ci tawfeex bari naa ci ay moroom lool ci ñoo xam ne seen aliwe aliwe yu gudd na sax nag bokkut ak sama aliwe nga xam ne aliwe ju gàtt la ah, loolu moom mënees na ko ci expo ci leeral bu ñu doon wax ci wàllu daara ji bu yeneen yoo a ki ñëwaat ci jërëjëf eh, jërëjëf eh, sëriñ Saalihu jërëjëf euh, sëriñ Saalihu Jaxate day mel ne gaaral gi leer na lool te am solo faram fàcce na daara ji cosaanam fa mu tàmbalee ca nga xam ne daanaka daa xaw lënkoo ubbiteeg jumaa ji ngir ne daa bokk ci mebeti yi nga xam ne sëñ bu mag bi bàyyi woon na ko fi maanaam mooy ak aj màkka comme ni mu ko leerale jumaa ju ñu taxawal ak jàngukaay boo xam ne day lënkaloog jumaa ji xam ne daa bokkoon ci bëgg-bëggi sëñ bi mu mel ne biñ ko ubbee rek ci jamono yi 1963 nga xam ne daanaka ci la ci sëñ As jotee ndigal ci sëriñ Fàllu ginnaaw bi mu ci waxtaanee boroom xam-xam yi dëkk bi ak ñi nga xam ne eh, ay kilifa lañ ci wàllu xam-xam eh, ñu junj ko sëñ aas mu woo ko xamal ko ne ko ndigalul sëñ Tuubaa la joo xam ne dañoo bëgg mu sottee ci mu sottee ci yow jamono joojit comme ni ko ni nga ko waxee mu nekkoon lu rëy ci sëñ ci sëñ aas ngir ne xam na ne lii ñu koy jox nii am na ay kilifa yu fi nekk yoo xam ne ñoom jàngal nañ ko te ñu ngi fi ndiki noonu am na ay magam yoo xam ne moom ñoom ñoo bokk ñoo bokk meen te bu dee ci àlluwaat ñoo ko njëkkoon a dal du ma ne ñoo ko ñoo ko rawoon waaye ñoo ko njëkkoon a dal te nekkoon nañ fi te santu santu ñu leen ko ndiki noonu bam ca waxtaanee kilifaam it mu békki lool ngir ne day mel ne ñaan gu nangu la goo xam ne doon na ko ñaan ngir suñ boroom defal ko ci njabootam ñoo xam ne danañ taxawee liggéeyu sëñ Tuubaa bi e, loolu it sëñ Saalihu leeral na ko bu baax a baax a baax ci waxtaan wi kon leeral na daara ji ci jan jamono la sosu leeral na ndigal li ci kan la jóge ak ki nga xam ne moo yoroon daara ji di ko taxawu te ba léegi mu di ko taxawu ak fi at yi toll ñuy ñaan suñ boroom mu gën a féq at at yi te roof ko kàttan ak doole akuk wér ba mën a continuer di liggéeyal sëñ bi nim ko euh, ni ko sëñ bi bëggee ndax bu ko bu ko continuer di ko defee ni ko sëñ bi bëggee te loolu la ñuy gis te muy tomb bu am solo nga wax ko léegi maanaam dañoo toll ci jamono koo xam ne su mënee dara rek da cay am lu mu cay lu mu cay gis lu mu cay yëg te suñ aas suñ borom defal na ko tawféexi maanaam daara ji lim ciy nekk lim ci yàgg-yàgg ñim ci génnee ñim ci jàngal nga xam ne moo leen dalal na leen baa bañ bàyyi te du ñu du doxee mukk ne man ab sëriñ daara la ab jàngalekat la ab oustaz la waaye day gëm rek ne bisu set takk Euh, derug laxasaay gi di liggéeyal sëñ Tuubaa maanaam soxlawu ca ku ca wooyee ab ustaas wala ku ko cay ku ko cay ràññee nga joxe ci firnde lu gën a wér maanaam ci e, jàngukaay bu mag bi nga xam ne dañ ko doon ubbi bu yàggul keroog bañ ko woowee ngir mu mu ubbi ko ubbi koo xam ne day barkeelu nam ca nam ca ñëwee der ga nga xam ne moom la moom la wax ñu andi ko ko mu takk ko ngir wane ne ba léegi rek daa nekk ci tool boo xam ne da ci liggéeyal da ci liggéeyal sëñ bi niki noonu waxtaa wax nga bu baax a baax ci heure yi nga xam ne moom la ñuy jàng ci ci daara ji nga xam ne côté boobu dañ ciy gis lu am solo loo xam ne suñu aas maanaam da ko cee da ko ci doon doxee maanaam mënoon nay wax ne daara ji tàmb njàng mi mi ngi tàmbali juróom-ñetti waxtu ci suba su ko defee kiy jàng mën naa tëdd ba waxtu julli raw ko mu yeewu julli ñaari rakkaam rek daal di ñëw jàng si waaye daa fexoon ba saxal ci xol yi ñi nga xam ne dañoo bëgg jàngee ci daara ji di leen gëmal ne daara ji njàng mi mi ngi tàmbali ca njël maanaam bu ñoddee noddu gu njëkk rek kuy jàngee ci daara ji moom bu la neexee na nga fa nanga fa teew ndax man ma fay jàngale dinaa fa dinaa fa nekk suñ dee jàng ñu jàng ba waxtu julli jot ñu julli suñ pare suñ ca noppee eh, ñu may ko mu yeggale ay awraatam yi nga xam ne moom lay def ñu continuer waat njàng mi nga xam ne bu huit day jot day fekk ne moom lim bu baree baree bari jaar nañ fi jàng mën a dem ñeneen ñi mën a mën a ñëw suñ xoolee loolu ci côté stratégie yi day gis ne stratégie bu am solo la ngir ne buñ tunkoon njàng mi ci ne huit lay tàmbali maanaam mbooloo mu baree baree bari danañ fa dajaloo war a jàngandoo te su boobaa dana indi ak pëccoxoo ca ca mbir ma maanaam teel a jàng gi maanaam dana yombal dana yombal mbir mi loolu xëy na ci sama déggin wu gàtt laa ko ci laa ciy déggee ba tey it euh, sëriñ Saalihu leeral nga bu baax a baax it maanaam xam-xam yiñ fay jàng ci fasantikoo ci téere yi ñuy tàmbalee ba ca téere ba cay ba ca mujj maanaam te loolu it bu dee ci xam-xam comme ni ko yéen boroom xam-xam yi ni ngeen koy saxalee maanaam tàmbali téere yi maanaam tàmbali ci yi nga xam ne moo ci moo ci gën a moo ci gën a suufee jëm ca yi ca yi ca gën a kawe maanaam bu dee lu mel ne feq ci dar yi ak ni muy tënku tënku ndax gis nañ ni suñ mag ñi bu njëkk moom lañ daan jàng te ñu baree bari ci lañ daan yem waaye dañ daan géeju bu baax a baax a baax ci xam-xam maanaam ci laxdar yi la kiy dal fiq ca lay tàmbalee topp ko mu nekk ak càllale goo xam ne da cay dem a dem a dem ba. yem ca ca la ca xalil ma nga xam ne ca la jàpp na ci fiq ku ko ku ko jeexal war na caa mën war na caa mën a yem ni noonu bu dee ci yeneen xam-xam yee ci côté tasawuf ci côté fiq eh, ci côté naxu ci côté adab ci côté xam-xam yu bees yi kutub yu bees yi lu mel na insaag yooyu noonu daanaka yooyu yëpp wane nga eh, ci daara ji programme bi nam ci nam ci doxee fi muy tàmbalee ba fi muy fi muy jeexee niki noonoot maanaam leeral nga daara ji sart yi nga xam ne moo koy tënk maanaam sarti teew gi ak sarti melokaan yi maanaam sarti teew gi maanaam sëñ aas daana wax ne ñuy teel a ñëw waaye dong bi lu mu naaje naajeet na ko fa witeer na ko fa witeer fekk maanaam kon loolu sarti waxtu la waaye bu dee sartu collaat maanaam nay sol loo xam ne tey bu ñëwoon allahu akbar jot naat mu mën a taxaw kàbbar julli bu solee yenn tuba yéet nga xam ne moom moo jàppandi ca moom na sol mbub mu gudd moo xam ne da koy da koy teg ca kaw ngir mu sóoraale ci maanaam culture dëkk bi te mu gën a dëppook xam-xam mi nga xam ne moom lay moom lay jàng euh, ba tey ci côté boobu noonu leeral nga ñi nga xam ne ñoo jaar ci daara ji ci ci tënk ngir ne ñooñu buñ leen tuddee xëy na ñoom lañuy ñuy gën a ñoom la ñuy gën a xam te ña jiitu di njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ne ay ay sëtam lañ ñi dellu di ñaanal bu baax a baax kilifa gu mag goo nga xam ne moo nekkoon kilifa daara gi muy sëriñ Mamor Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne bokk na ñu gënoon a fës ci ci daara ji ngir ne ci daara ji la génne nekki noonu mu ci génnee moom lañ defoon kilifa daara gi itam safoo woon ko lool. Euh, jàppoon ko lu rëy rëy ngir ne daara ji sëñ aas moo ko dalal baa ba ne ko ba ne ko bàyyi yéen nekk noonu tudd nga ca ñeneen ci njabootu sëñ tubaa gi moo xam ci waa kër sëñ Sohabu gi la wala waa kër sëñ Abdullah Allah wala ñeneen ak ñeneen nekk noonu tudd nañ ci ñi nga xam ne ci seex yi xëy na ci seex yi lañ bokk ci waa Njaxate ku mel ne sëñ sëñ Xaase mu Jaxate nekk noonu tudd nañ ci ñu mel ne waa loo yéen ku mel ne docteur Ahmed loo ku mel ne Eh, Cheikh Ibrahima Khalil Lo ak ñeneen ak ñeneen ak yéen njabootu boppam gi nga xam ne eh, sëñ As mooy seen kilifa ci daara ji ngeen ngeen jàngee yow mii bi ñuy tàmbalee wax nga ko sëñ As moo la dalal baa xëy na la na la bàyyin lépp ci moom nga ko jàngee alxuraan nga yeggalee belal ca jamonoy sëñ Abdou Lahad waaye lépp luy aju ci xam-xam eh, ci moom nga ko jàngee ba tey bi wuutu ko jotee ci daara ji wala nekk faak moom di ko jàppale ci liggéey bi ba mu jotee yow ak ñu mel na ñoom ñu mel ne yow nga xam ne sëñ sëñ aas moo leen jàngal euh, yéen a fa nekk kon daal euh, mbir mi leer na bu fekkee ne am na tomb boo xam ne dañ koy laaj ndax fii xam-xam toll ci ci réew mi ak ci àdduna bi yëpp ndax daara ji dees na fi jàngee lenn ci yeneen làkk yoo xam ne du du arab lu mel ne ndax dees na fi jàngee lu mel ne français wala ndax des na fi jàngee lu mel ne àngale ak bu fekkee ne jàngewuñ ko fii lan moo tax yooyu noonu bokku ci xam-xam yi nga xam ne dañ ko fi jàngee ngir ne dañuy dund ci réew moo xam ne xëy na jàpp nañ ne làkk yooyu am loo ja xam mënta mënta ñàkk. waaw kay suñu fàll ñoo ngi siyaare bu baax <laughs> euh, waaw euh, léegi moom fi àdduna bi toll dafa àdduna bi dafa tijjeeku. en tout cas ku ko defut it ku tijjeeku day mel ne ci wala yow yaa tëju waaye adduna bi moom tijjeeku na ci niñ ko waxee woon léegi daa nag dafa euh, nekk bëggug sëriñ Tuubaa dafa suñ mbàkk ko sëriñ bi bindee ndax booy xool waxam jooju leen wa saani madrasa takkuunu rexlatu sénégali ilayha koo tënkoon daane fi ulumi l arabiyati sariyatiha wa loolu lim loolu la si mbàkk bu sa wax ci kitaabaat Seex Mbàkke Buso yooyu fi ilmi al arabiyati la raiyatiha wa alatiha waaw loolu moo tax kon ñun eh, loolu lañ koy jàng waaw ndax loolu mooy bëggu sëriñ bi ca moom ci eh, wa ma sakkat xanil madrasa li kawniha tabia lil masjidi la wax lil masjidi hu xala talabiha talabul masjid bi moom mu ne sëriñ bi jiitaloon na ko defoon na ko ndax ñun ñëpp gis nañ kayit woowu sëriñ Mbàkke Buso bindulu sëriñ Tuubaa binduloo woon ko ko sëriñ bi doon ci mustaktif hadilon ruuf nangam daan ne amaa nag madrasa bi mu paree autorisation licence bi muy laaj pour jàngale li tax sëriñ bi jotu ko woon a déposé dafa waroon a xaar ba jumaa ji pare ba mu tijji ñu doog a wut autorisation bi waaw loolu looloo taxoon euh, melut ne donte nag ñi ci xamut ci mbindum càmmoon ci ñun la lekat euh, féete këram di jàngale ci yi lycée Mbacke bi amoon ndigal ci fa nekk moom yi ci des araf yi daanaka li fer ñu ci fer ji ci ñoom la waaye moom nekkutoon lu mu ginnaawal lu mu bañoon ci wasaayil yi gën gër la fi ne daara ji bu fekkoon ne yu mel yi amu fii da koy jigaane ca ka ngay jéggaani mu war lay xamal ci beneen làkk bi ci des amaana na nga ko du ko defee noonu waaw moo tax loolu moo tax bu dee daara ji nag moom li mu nekk daara joo xam ne du daara am Amsatu wala ju nekk biir kër Sëriñ Fallu waaye daara yi murit yii la daara ji law yoo xam ne Sëriñ Mbàkke Buso moo ne bëggu sëriñ gum fi bàyyi Seex Mahamadu Fadal daat koy jëm teg fa ko doon jàng ñoom moo ko yore ci ñoom moom moo moom la mën ak yëpp moom moo yore daara ji ci pas-pasam ak ci tawféexi boppam ci lépp nag ñi ci nekkoon ay gone yu ci su yokk xam-xam ñi bisiwaat it ñëpp ci ak njabootam ña nga fay jàngee ñu yore seen liggéeyu boppit ñi ñu ngi ñu koy boole ak ak daara ji seen kam lay kàttan donte am nañ nag ay benn benn ci ay waa ñu ñu fi ñu fi jàng woon ba noppi ñu orienté leen ci léegi ñuy jàngale ci état bi waaye samedi ak dimanche bi ñu dul jàngale dañuy ñëw di ko jàngale si di ko jàppale ci njàngale loolu it yàlla def na ci tawfeex. jërëjëf euh, sëriñ Saalihu euh, laaj boobu leer na ngir lan moo tax euh, xam-xam yooyu deesu ko fi jàng wala buñ ko fi ndax dañ dañ ko fi jàng wala buñ ko fi jàngul lan moo tax yëg nañ ci. li nga wax ne sëñ bi daa waxoon ñu fay jàngee xam-xami diine yeeg la yi aju ci wàllum langue arabe maanaam ndigal li ci yooyu la tënku ndiki noonu it jàngukaay bi dafa am lu mu lu mu topp muy muy jumaa te comme niñ ko xamee langue wu ñi wooy jàngit maanaam da nga jàngaale saqaafaam te koo jàngu langam it maanaam mu jox la mu jox la melokaanam te yooyu it man ne muy bokk na ci yi nga xam ne de lu ñu lu lu ñu doon lu ñuy moytul fu mel ne jumaa jumaa ji la waaye comme li nga wax it lu am solo ci la di kenn ginnaalu euh, bàyyiwu ko woon ndax am ku koo xam ne daana jàngale e, araf araf yooyu noonu day mel ne waxtu bi sori na euh, dañuy wàcce kàddu gi foofu noonu euh, di santaat bu baax a baax Serigne Saliou Diakhaté mi nga xam ne doom la ci sëriñ As Jaxate mi nga xam ne mooy war daara ji te moo fi nekkoon moo ñu doon topp euh, ñu koy sant bu baax a baax a baax di ko di ko gërëm euh, di ñaan suñ boroom mu def jéego yi yu dëkk yi ak yu dellu yépp ñu dajee cee ngërëmul sëriñ Tuuba euh, di leen sant bu baax a baax di jël suñu cantit ci sëñ aas di ko teg sa loxo nga tegal ñu ko ci ci loxoom ci jàppandal gi ñu jàppandal euh, lépp loo xam ne rek soxla nañ koo xam ci ci daara ji bañ bañ bañ xam ko kon ñu ngi delloo cant cant goo xam ne dañ ciy wutu sëñ Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa jotaay gi fii ñu toog nii moo ñu sant ñu toog fi ngir ànd yow waxtaan wi ak kilifa yi daayira bi ca Euh, sëriñ Afia imam mi nga xam ne mooy jëwriñu daara ji kon ñu ngi sant bu baax a baax di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin